asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 3 février 2020 ñu ñëw ci yëglikaay yi moo xam sunu làmb la record Les Échos wala Leewtoo TV wala sax Leewtoo point net fu nekk daal xibaar ya tey xëy nañu taxaw fa bu fekkente ne nag fi nga xam ne nii daal moom moo di ca sunu làmb la moom moom ak record ak kum ci mën a doon ba ca Leewtoo TV wala Les Échos ñëw nañ ci lu bees loo xam ne nii daal ki nga xam ne nii moom moo di Papa Sow sanc na ko yëglekaay bi xëy tey ñëw di ñu ko wax mu mel ni ki nag fi mu nekk nii daal yëglekaay bi xam nañu ne day démb moom ca parcelle xumboon na lool Papa Sow daal lancé na nag jàmbaar wrestling académie mu mel ni ki lu bees teq juddu na li leer ba leer daal démb moom ña fa bëri na bu baax a baax a baax a baax mu mel ni kii nag yëglikaay bi daal ñëw na ci loolu per ba nag daa mel ni daal moom la ñu nar a def nag président ba ci loo xam ne nii daal waxtaane nañ ko jàppal dimanche ji nu jëm nag daa mel ni bureau ba moom ca lañ ko nar a tabb membre ya ko nar a seq mu mel ni ki nag li leer ba leer daal gis nañ fa ay coach yoo xam ne nii day daa mel ni est-ce que du ñu ànd ji ak ñooña moo xam Balla Diouf la Lato la wala Laay njomboor ak ki nga xam ne nii moom mooy Cheikh Ndiaye ci côté management bi mu mel ni ki daal mbir mooma fi mu nekk nii moom samp moom def na ko bu baax baax a baax yëglikaay bi di suñu làmb wax nañu ko waaye yëglikaay bi nga xam ne moo di Zeko tamit les Zeko ñëw na ca de ne na li leer ba leer daal académie ba moom léegi nag juddu def na ko Papa Sow daal académie ba taxaw na objectif ba nag wala bëgg-bëgg bañ ca am mooy li leer daal mooy def loo xam ne nii daal ci beneen façon lañ koy defe moo xam ci wàllum làmb la ak leneen ak leneen yëglikaay boobu moo xëy ñëw wax ñu ko mu mel ni ki nag diggante Papa Sow moom ak Modou Lo fi mu nekk nii dey ah gën nañoo dëgëral seen ànd ndax démb moom moo du ñëw na teewle si ko jàppale si ko ak képp koo xam ne doomu parcelle nga mu mel ni mbir tamit mu nga woon ca Leewtoo TV ñu ko fay direct àddina bi yëpp di ko seetaan mel ni ki daal ama moom wala boog ki nga xam ne nii moom moo di Modou Lo daal ñëw na ànd ak biram nga ak staffam yëpp ak entraîneur am ak président écrim ñu ñëw dooleel si Papa Sow wan ko ne nag mbooloo mooy doole te ñoo bokk li nga xam ne mooy parcelle Papa Sow itam loola neex ko ba tax mu ne day li leer ba leer sama diggante Modou moom Modou tey dina xam sax ko gisee dama koy sàmm ku may jàpp-jàpp ma ngir moom ku may bàyyi bàyyi ma ngir moom mu mel ni ki foofu daal démb mel na ni tuq su bën saañ ba réer parcelle feesoon na dell waaye dañuy dellu sunu làmb likaay bi nag dana làmb ja moom boo bëggee dégg-dégg sàjj def na ko la taal taal ba nag mooy si ta papa sow Abdou Diouf giri deux moom doo loo ci mën a dégg double XL la ko yëglikaay bi moo Modou Lo amaa itam ñëw nañ ca ba ci Balla gay 2 ak Boy Niang wala Tapha Tine ak Gris Bordeaux mu mel ni ki loola itam ay bés la yoo xam ne nii lay wala ay affiche la yoo xam ne nii yëglikaay ba ñëw na wax ca keneen koo xam ne moom moo xëy ngar daaju yëglikaay bi di record wax fa ay waxam wala waxtaan fa waxtaan wu yaatoo yaatu mooy Boy Niang Boy Niang daal Abou Ndour la xëy séqal waxtaan Boy nag na na li leer ba leer Balla Gaye de lay waxal ne na ko na leer ci yow nañ nekkul na dama laa teg ay bët fixé la ne yow du baax Boy Niang ne ne déeréet demewul de Abou ne ko léegi nu mu demee mu ne li leer ba leer daal fixé wu ma ko na na ko leer te leer ñi nga xam ne nii ñoo ànd ak moom loolu waxi ki nga xam ne moo di Boy Niang la waaye yemu ca di ki nga xam ne nii moom moo di Abu Nduur ñëw ak moom ci mbirum kase ba ñu ko fay booy ñang ne na day waxuma sax sama combat ak Lac de waaye sama combat ak Sa Thiès la ñu ma fay romboon na cinquante millions kon nag bu ñëwaatee di ma fay tey cinquante millions ngir ma bëre ak Balla moom moom daa jàpp loolu daal xel daal da koo sax mënta nangu ndax jàpp na ne moom fi mu nekk nii digganteem ak nekkul combat boo xam ne bu mu war a laal kaseb cinquante millions kon kay daa jàpp ne moom na nañu yokk mbir ya su ko defee bëre mën a am ñu ne ko ki koy dox muy jamaïcain mu ne moom xale la boo xam ne daal bu jara encouragé la ndax nag jeune la boo xam ne tey jóg na di dox loo xam ne nii day ah xale bu koy def waras na laa puus waaye abu nur yemu tak moom foofa de dugg na ak moom ci combat bi mu jëbëre mu ne ko Yékini seetaan nañ ko mu critiqué la ne bi ngay bëre ak Lac de Guiers numéro 2 poids ba nga yoroon daa bëri booy ñang ne na loor day la ci man bànneex la ndax mbër mu toll ni Yékini mu def ci làmb ak ki mu doon bu toogee ba seetlu ma di ma critiqué moom jàppal ne loolu moom bànneex la ci man te itam loolu mu def danañ ci gën a bàyyi xel gën cee liggéey ngir poids bi nga xam ne moom laa moom ma yor ko di ko bëree ngir mën a def def samay curuxu curux loolu waxi booy ñang la ci yëglikaay bi nga xam ne moo di leese ko mu mel ni ki booy daal tey la mu waxtaan ak Abu Nduur yaatu na ba yegg ci lool mu mel ni kii nag bu nu demee ca Leewtoo point net moom daf ñuy wax kuréel gu bees goo xam ne juddu na di ay promoteur yoo xam ne nag ka leen jiite wala ka leen di coordonné du kenn ku dul ki nga xam ne nii moom moo di Bamba Faye bërki dem ci samedi ji nag lañ doon def seen waxtaan ci teewaayu ministre des sports Moussa Matar Ba mu mel ni ki nag association des des promoteurs authentiques kon Bamba koy coordonné ka nga xam ne nii nag mooy premier vice président ba mooy Jibi Ndiaye borom Gibson production waaye ka nga xam ne nag mooy président d'honneur ba moom mooy Baye Ndiaye nga xam ne moo jiite Alburax keneen ka nga xam ne ni moom moo yore porte parole ba moo di Abdoulaat Ndiaye ka nga xam ne nag moom moo di ki nga xam ne moo yore organisation ba moo di Mbaye Yékini moo mel ni kii daal kon li leer ba leer ñoom itam seen a kuréel juddu na samp nañu ko kon li am solo daal mooy rek ànd liggéey ngir Sénégal jëm kanam waaye keneen koo xam ne nii moom wala beneen combat boo xam ne daal amoon na wala ci weekend bii jàppal moo di caatu ngewel ak fils de Zallo trois minutes cinquante secondes daal la ñu bëre waaye ki nga xam ne nii daal moo di caatu ngewel daa mel ni digganteem ak Zallo bu fa bokk digganteem ak fils de Zallo waxoon na xat gara ci fils de Zallo vidéo ba mu nga Leewtoo TV xeex nañu bëri nañu ki nga xam ne nii moo di caatu ngewel mujje ko daan ba tey loola ci Leewtoo TV lañ koy fekk omees itam mu ngay wax la ko naqare ne na leer ba leer daal CNC bi jiite làmb ji war nañoo wax ak Sallou ndax nag la mu def tegu ko fen ndax moom dub entraîneur nekku ko tey suba waxi noppi ak lu mën a xew bu bëre amee ak fu làmb ja mën a toll war naa mën a téye boppam waaye amul droit jóge fële ñëw di jële entraîneur bi ci baaba di ko yëkkati di fa toog omees moom loola lay ñaawlu wax na ko ca Leewtoo TV waaye wax ko fa nga xam ne tamit yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb waaye ba tey jamono jooja fa nga xam ne nii moom moo doon ca bari ñi sëñ Modou Niang moo ñu fa yóbbu woon moom itam daal lastandeer la fa tëggoon ak ki nga xam ne nii moo di rëm waaye rëm daal daa mel ni mujj na daal ci kaw rastandeer ne rëm ci kawam daan ko jël bu rëy rëy rëy loolu yëglikaay bi moo ñu ko xëy tey wax ñu ko wala boog lasta ndeer moom moo daan ki nga xam ne nii moo di rëm loolu yëglikaay bi moo xëy ñëw wax nu ko waaye jàppal li leer ba leer day te jara bàyyi xel mooy fa nga xam ne moo doon dimanche wala samedi ca lambi ki nga xam ne moo di ama events ja xaddaafi wala boog du du saane bu jof yor mu mel ni kii moom day kera wane na boppam bu baax a baax bëre na maale maal ma ne kam doon bëreel daan ko indi fa mbooloo mu baree baree bëri yëglikaay bi xëy nu ko waaye leneen loo xam ne démb itam seetaan ngeen ko mu nekkoon direct ca Leewtoo TV drapeau mbayang loom la woon duudu ñaana fa jaaroon tegoon fa un million mu mel ni ki nag démb moom fa nga xam ne moo di Adrien Senghor feesoon na xatoon na tàngun na jëritam ponkale di ko ñàkkante di ko ñàkkante ba ca final ba nag ki nga xam ne nii moo di gaskel jàmme gañe ka nga xam ne nii moom moo di Libidor bu Kayaar par ay avertissement Libidor ñetti avertissement la gàddu ka nga xam ne moo di Gaskel gàddu benn loolaa jeexal làmba ja mu mel ni kii daal démb li leer ba leer Adrien Senghor ne woon na tàcc waaye itam sam ja Iba Mar Diop wala boog arène national noonu na tàcc waaye ndey Kumba Fall kenn du Ramos Ramos ne naa ko yaamat capitaine yow moom waa Real juumunu waaye Ramos Ndiaye kenn du yow maa xam li tax mu tuddi la Ramos yàlla na sa jàmm yàgg mbokk waa Leewtoo TV nii nuyu di si revue de l'arène bi maa ngi lay nuyu di la ziar di la màcc di moom métti woon trop te chargé Babacar maa lay delloo ziar Ndeye Coumba Fall waaw waaw waaw di nuyu ñu suivre ci Leewtoo euh, li ko waral rek mooy xëy na liggéey ak jéem a satisfaire ñi ñuy seetaan parce que tamit nit ki amul lu dul ñu lay jàppale di la seetaan te ñi ñuy jàppale mooy ñu ñuy seetaan rek kon defe naa ne du ñu xool naaj wi tàng na wala mu ngi taw wala sedd wala nangam tout le temps rek dañuy fexe nekk ci mission bi quoi di leen bégal ñoom quoi. Babacar nag ni ñëw nag li nga xam ni moo nekkoon information du week-end bi mooy création li nga xam ni écurie bi nga xam ni moom la Papa Sow taxawal muy sunu lamb les échos record Leewtoo TV ak Leewtoo point ñëpp ñoom ñëpp tey xëy ñu génnee li nga xam ni mooy joxe information bi neen nañ daal Papa Sow lancé na li nga xam ni mooy jàmbaar wrestling academy Babacar waaw loolu moom am na démb ci samedi ji fa nga xam ne nii moom moo doon ca Parcelles Assainies. démb dimanche. démb dimanche boog <laughs> maa ngi juum naan samedi samedi bërki démb la woon. waaw mu mel ni ki démb tamit ñu ngi ko doon suivre ci Leewtoo point net wala Leewtoo TV direct tamit yaakaar naa mu nekkoon lu am am solo moment yu neexoon la ci waa parcelle ah, gis ni démb képp kuy doomu parcelle wala bu ñi ci ëpp ñëpp génn nañu démb yaa ngi dégg parce que yaakaar naa ne foo gis Modou Lo muy roi des arènes ci wàllum làmb teew fa kon bu la neex nga ne mbir yëpp teewoon nañ ci parcel waaye yaa ngi dégg ñoom père Birame Ñing père Birahim Ndiaye Manga promoteur yi tamit Assane Ndiaye teewoon na mu mel ni ki daal. waaw waa Fass sax. ñu nga foon parce am na ay ñoo xam ne nii mën nañ ay waa Fass lañ ñu ngi foon mu mel ni ki kon li am solo mooy ah Papa Sow na lu bees ah les jàmbaar wa wala jàmbaar wrestling academy muy lu bees teq loo xam ne nii juddu na li ñu koy ñaanal nag muy mu mu am ci lim ciy séentu parce que lim ciy séentu mooy na du moom kese parce que bu ko sampee ngir boppam pour man du am njariñ mais xëy na mu jur ay champion yoo xam ne dinañ mel ni Papa Sow wala mu raw ko loolu lañ koy ñaanal di ko ñaanal képp koo xam ne yaa ngi dugg ci dara ak lu mu mënta doon mais li am solo daal la ma waxoon rek parce que déclaration ya yee fa jóg am na solo trop encore une fois ñu nuyuwaat ki nga xam ne ni mooy père ba ak kilifa yi nekk parcelle yëpp parce que comme li ñuy wax rek Sénégal benn bopp la mu ne su koo xar te la ma leen la ma la la ma wax Papa Sow yaa ngi dégg wala boog la may la may wax Papa Sow man bu fekkee am naa lu ma koy wax la ma koy wax keneen ak keneen ku mu mën a doon diggante nit ak nit nañ koy sàmm nit ki saa yu ngeen xasee am relation même bu fekkente ne jafe-jafe am na seet leen ci démb la ngeen seqoon ci lu baax ngeen indi ko teg ko ci tey pour ngeen mën a bañ waxante lu ñaaw wala ngeen koy defante terewul nag ku ne am nga droit nekk ci sa kër defar sa kër mu rafet waaye ngir yàlla ko yonente bi bul jël menn mbalit di ko xëpp ci këru jàmbur même boo ko xamee sax parce que yàlla dafa mandu mandu gu toll ni wala dafa fonk bu jàmm fonk bu toll ni yaakaar naa ne jànguñu lu bari de mais yegg na ci sax tey nit ki bu ñu koy tëralee di ko julli yàlla na yéex yàlla na yàlla yërëm ñi faatu yow mi nga xam ne da ngaa xam ci ki tëdd lu rafet yow la ñu bëgg nga ñëw seede yow mi ci xam lu nga xam ne lu rafetul la soxlawuñu sa kàddu te loolu suñu borom bee moo ko bëgg si ñun kon yaakaar naa comme moom bëgg lool ci ñun ñun war nañoo mën a mayante jàmm di suturaalante di waxante wax yu rafet daal Babacar nag lu wuteek eh, école de lutte boobu ak yeneen écurie yi nga xam ne moom lañ tàmm di gis mooy maanaam école boobu genre université la parce que làmb yu bëri yu bëri lañ fay jàng muy bëre simple bëre lutte olympique ak li nga xam ne mooy bëre frappe su waxee nag day jàngale lutte olympique moom wàcc na ndax jaar na euh, lutte olympique euh, moom ki nga xam ne mooy Papa Sow nee nag ki nga xam ne mooy père ba président bi coaché nag nee nañu ni ñu fay séntu Balla Diouf Lato mi nekkoon champion du Sénégal euh, en 2014 fa ne si si Kaolack Cheikh Ndiaye na manager Fass loolu nag manager bi nga xam ni moom mooy euh, école boobu Jambar Wrestling Academy Babacar. waaw noonu loolu ñu ko limbee am na solo parce que tamit yaakaar naa ne boo sañcee lu bees war nga indi wet beneen doxalin bu bokkul ak xay na yi amoon yaa ngi dégg foo xam ne nii du bëri simple kese lañ fay jàngale wala lutte avec frappe mais lutte libre lutte gréco lutte olympique yooyu yëpp ah buñ ko fa waxee ak ñooñu ñu fa tudd. yaa ngi dégg tey defe naa ne wàllum lutte simple boo indee ku mel ni laay njombor yaa ngi wax 2014 sa waaye 2012 voilà waaw bi muy gagné Forza voilà ci finalu drapeau chef de l'état ba voilà kon kooku yaakaar naa ne mën na dolool parce que nekk na international nekk na équipe nationale ay at bu dee ci côté lutte avec faral tamit yaakaar naa Balla Diouf itam yaakaar naa ci jamono bi muy bëree kon xam na ne mën na xeex kon ñooñu ñëpp boo leen boolee lato itam yaakaar naa ne ci li ñu xam ñu parcelle bëri na ñu mu fa jàngal bëree yaa ngi dégg parce que yàgg na fa di fa former gis nañ ko bu baax baax ci muy liggéey liggéey yu mel noonu kon yaakaar naa ñooñu soo leen dajalee bëgg a jàngale bëri ak la Papa yor bu ñu ko boolee defe naa ne xale yu fa dem mën nañu am chance bu toll ni ëllëg ñu am seen wërsëg ci li nga xam ne ni mooy sport boobu Babacar nag ñu doon laajte amateur yi naan dafa mel ni seen ñaani bi nga bëgg nangu ndax combat yu mag mi nga xam ni moom la ñuy séntu ci saison bi muy diggante Siteu Papa Sow Abdou Diouf Gris 2 Modou Lo Ama Baldé yaakaar aussi Boy Niang ak ki nga xam ne mooy Balla Gaye taxaw Babacar ah waa loolu day bu amee làmb ji sàjji na comme ni ko yëgle kaay wax rek day sàjji ndax combat yooyu yëpp a jaadu yaa ngi dégg mbaa ah, ah, ak Siteu moom waxatee su ko bay wéy na mbuus ama ak muur itam pour man bay wéy na mbuus yaa ngi dégg xëy na ñu koy wax mooy lu mel ni Boy Niang Balla ñu ngi koy wax Tafatine Gris Bordeaux Abdou Diouf Gris de na mbuus ndax taxaw na boobu moom jàll na moom itam Tafatine Gris Bordeaux ñu ngi koy wax war na mën a nekk waaye tamit Eumeu Sène Bombardier ñu ngi koy wax li am solo nag mooy combat yooyu yëpp daal yàlla na taxaw bu yooyu ñu ko waxee noonu taxaw tamit ñu jaxasewaat leen ñu bëre rek ci seen biir ba tey waaw def loterie mais faw ñu bëri ñoom ñii ok suñu jógee nag fi nga xam ne mooy suñu laan dem si record record na dafa xëy dara ki nga xam ne mooy Boy Niang moom daal lu ma gis nee na moom tegul bëtam yëpp tegul benn bëtam bi si kaw ki nga xam ne moom mooy Balla gay te nee na moom demande sociale la sax combat Balla ak Boy Niang demande sociale maanaam askan ni noo soxla combat boobu noonu mi ngi wax tamit nee na luy wax Balla Gaye daf ko ëpp niveau moom gëmul ne Balla Gaye ëpp na ko niveau si làmb ji Babacar waaw moom daal kon noonu la ko xëy jàppe daal jàpp na ne daal moom combat ba ah euh, demande sociale la waaw waaye li ma xam li ma xam daal mooy diggante mag Balla coow li bëri ci làmb nag moo baaxoo noonu làmb baaxoo coow des fois sax nga wax ci wala ñun dañ ciy wax sax ñu jàpp ñu ñoo xam ne nii xëy na tey dañ fee nekk ngir combat bu wala dañu am kuñ ciy faral wala kuñ ciy faral yaakaar nañ ne ñun fi mu nekk nii moom dépassé nañu foofu moom dëgg neex yàlla dafa fekk ne nag bu ñu xëyee bu Abou Ndour bindee ci record wala Dembélé bind ci sunu làmb wala ay bakkan wala keneen wala nga bind ci Leewtoo point la nga bind faw ñu wax ko wala wala man ma gis vidéo ci Leewtoo TV danaa ko wax wala muy Leewtoo TV fu mu ci mën a doon ma gis fa xibaare làmb moom ah danaa ko relater pour internet yi jot ci waaye nag la ca des moom du sunuy mbir waaye li am solo daal ñoom ay sportif lañu booy Niang nag li mu wax leer na kani bàll ëpp ko niveau waaw loolu am na ci droit kenn du ko ci jëlee yaa ngi dégg waaye yaa ëpp niveau wala ëpp niveau su arbitre soufflé lañ koy xam waaye li ma xam daal soobu na ci mbojum balla booy ñang soobu na ci mbojum balla de booy ñang xaw ma lu xew nag luñ la déey la wala dangaa ngaa jàpp ne yaa dàq bëre wala lu xew mbër nga nag xale nga am nga talent macha allah waaye cey Balla Gaye de mën naa bëre de billaay mën naa bëre mën naa bëre foofu nag laa yem. kon boog sans commentaire Babacar suñu jógee nag euh, record yi dem fi nga xam ne mooy Leewtoo TV Leewtoo TV samedi demoon na foofu si arène nationale euh, combat bi journée bi nga xam ne ki nga xam ne mooy Boubacar Niang moom la euh, tëgg diggante moo mujj daan ki nga xam ne mooy Fils de Zal loo Babacar. waaw looloo am dim samedi passé ak Ama events muy Boubacar Niang ñu koy nuyuwaat di ko ziar di nuyu madamam ak ay mbokkam yi parce que moom tamit dugg na kër dugg bu bees ah, li tax mu dugg nag. yal na ko yal na ñëwaat lañ koy ñaanal parce que bu ñu sañoon ku tëgg da nga fiy toog waaw mais comme li ñuy bañ daal ah tëggum dënd ak sémmiñ rek neex benn naqari benn loolu duñ ko ñaanal kenn ku ñëw si làmb li mu def nag vraiment kera neex na trop ay espoir la boole ay xale yu ndaw jox leen ay combat ñu bëree ko jilli ya leer combat ya neex waaye caatu ngeel nag fils de Zal Lo moom combat bu méttee métti kera ay xale booy boole boole ñu ñu tolloo bëree nañu xeex nañu coow la mel ni tulleeg màlle ah am na fa coow loo xam ne am na parce que ñi nga xam ñoom ñoo farak fils de Zallo jàpp nañ ne ñoom lu jëkk la ñoom da seen mbër daa daan waaw loolu la wax ñëw nañ ci man Babacar ñoom mën a leen nag Babacar moom du siise du àtte du moom arbitre arbitre ba àtte daal la mu def ci laay sukkandiku yoon nag am na fi xam nga seen sa dafay nekk pour ku gis loola neexul nga dem recours yi loola itam du mbirum Babacar seen mbirum manager la waaw loolu mooy li nga xam ne amoon na di féliciter caatu loo ci mën a dégg ñoom ñaar kenn déméritul ay xare lañu xeex nañu ba ku nekk dagg ñu bëree bëree bu méttee méttee métti yàlla def ki nga xam ne mooy caatu ngéwél daan ñuy féliciter waa Yoff yëpp di encourager tamit waa école de Cheikh Mbaba si Leewtoo TV ba tey ki nga xam ne mooy Owens nekk si euh, nekk entraîneur nekk aussi coach équipe na euh, nekk coach aussi euh, équipe de Dakar si drapeau chef de moom daal mi ngi ñaaw li ñaawlu li nga xam ne mooy comportement Zalou keroog bu doom ji doon bëre fils de Zalou moom nee na amu woon droit toog si chaise bi ndax nekkul coach Babacar. waaw loolu lépp li ko indi xëy na mbirum deret la ak xër waaye Zalou yaakaar naa ne compétir na drapeau chef de l'État ko. nekk na lu nga xam ne nii moom mooy écurie def fa ay jaloore kon defe naa làmb waruta am lu ko ciy dépassé pour man actuellement mais nag xëy deret daa loolu tax xëy réaction bu mu def ko mais encore une fois yaakaar na ne réaction boobu warul ñooñu kon ak lu mën a xew rek ak moment bi lu mu difficile difficile rek xëy na war na jéem am maîtrise boppam ba bàyyi entraîneur yooyu ñu def li ñu war a def ñoom parce que tamit ñoom ñoo indi doomam yóbbu ko ngemb ko waaye nag ku ne am nga fooy yem ci mbir mu ne ndax nag sport bi ñuy def sport du affaire kii quoi du affaire deret kese kese kese donte deret dina ci yëngutu waaye am na foo xam ne bu ñu fa yeggee tey nag ah say entraîneur ñoom ñooy taxaw xam nga tey ak lu mën a xew fii ñu toog nii di wax ña nga xam ne nii ñoo ma gën a jege ci deret suñ ñëwoon ne dañuy taxaw bañ pare kon noonu la mbir yi demee quoi mais di wax xëy na deret ma ko tàngaloo omes tamit loolu moo it ah, jar na bàyyi xel Babacar ñu jeexee nag ak Leewtoo point net foofu ni ngi suñ fa demee dañ fa gis bureau bi nga xam ne mooy promoteur euh, association des promoteurs authentiques taxawal nañu samedi bi seen bureau président euh, coordinateur bi nag mooy Bamba fay chargé de communication muy Abdoulahad Ndiaye premier vice président euh, di nga xam ne moom mooy seen production Jibi Ndiaye ki nga xam ne mooy chargé de l'organisation mooy Mbaye Yekini Babacar waaw loolu am na solo trop teewaay Matar waaw ministre des sports moom ndeysaan Matar comme li may wax rek moom toujours disponible moom encore disponible waaw moom ndeysaan moom non parce que loolu la quoi nit bu ñu la dénkee dara yaa ngi dégg ña nga ko dénk ndax kër wax na ko ci Leewtoo TV da nga leen di jege nit ñi boo leen jege ñu doo xam seen i soxla yaa dégg kon defe naa ne ñooñu les am les promoteurs authentiques ci njiital Bamba su ñu wootee mu dem teewal leen ñu fal seen bureau loolu yaakaar naa kon mention spéciale à Matar Ba mais ñoom itam ñu ngi leen di nuyu di leen ziar rawatina Bamba may coordonné ñoom Abdoulahat Ndiaye ji Guèye ak ki nga xam ne mooy Baye Ndiaye ak ñoom Jibi Ndiaye ak ñoom ñëpp mbay Yékini loolu am na solo trop parce que pour man yokkute la rek yaa ngi dégg tool bi yaatu na ku nekk bayal fexeel ba sa waar baña booy mais li ci des mooy que ni terewul nag diggante yi mën naa rafet. parce que lépp Sénégal la ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi te ku ci am xew moo xam xew bànneex wala xew naqar ñëpp ay teew la preuve créé ci Aziz Ndiaye bi ko li ko arrivé dalee ñëpp a fa teew yaa ngi dégg kon loolu comme loolu moo ñuy boole rek na lépp rafet di leen ñaanal ñoom tamit promoteur yooyu parce que gis naa ne tamit ñu ngi def lu am am solo parce que journée yi ñuy tëgg am na solo trop gis nga jéey bërki dem fi mu génn Babacar nag fàtte woon naa ne jeexale ak lit simple bi feef si Leewtoo TV euh, dem drapeau Mbayang la woon neexoon ndax ñetti avertissement la kële am Libidor Gaskel am benn temps jeex ñu jokkati loxo Gaskel yaa ngi dégg ñu koy féliciter di encourager Libidor lit simple moom noonu lay demee mais di encore di nuyu tamit mi ko tëggoon ndax itam démb arène ba moom amoo sax foo toog pour pour ndax nit ñu bëri loolu nag moo lay wan ne kon suñu soppee ñu koy nuyu di ko ziar di nuyu waa mbin farba yëpp di dëkkam di nuyu képp ku nga xam ne ni daal yaa ngi dund làmba mais dem daal arène nationale moom wala fi nga xam ne mooy Adrien feesoon na dell mais ndey kumba am na loo xam ne tamit xam naa balañ koy fàtt rek mooy lees de dañ koy jàll papaam ndax papaam dafa génn àddina di suñu papa Daouda Fall yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana barke noonu fet bi Babacar masha Allah am na solo maar borom Liberté 4 ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu waaw di nuyu Kempes di nuyu Beuz borom Sine di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Liberté yëpp euh, ba Liberté yëpp daal ñu leen di nuyu nuyu ñi nga xam ne tamit ñoom ñoo ñu mën a ne aw koy nuyu moom itam di nuyu ki nga xam ne mooy Asi Diagne sama naar bi ci Mauritanie du ma ko fàtte Amina ñi ngi borom KMB nuyu naa ko di nuyu waa groupe baax yëpp rawatina président Massamba Dieye ak ñi nga xam ne ni ñoom ñoo nekk si group bi ñoom Sora Malick ñoom Laay bu Faas xam nga ñoom Aliou Dramé ñoom ñëpp Abdou Tyson maa ngi koy nuyu di nuyu ki nga xam ne nii moom moo di Ngañ Sow ca États-Unis d'Amérique ak ñoom Abdoulaye mbay képp ku ñu suivre daal ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Argentine waa Côte d'Ivoire waa Mali Maroc Nigéria Bénin parce que fu lañ ñuy suivre kon nag amuñu seen fay Argentine waa Argentine bëri nañ fay soppe Ndeye Coumba Fall boo fa demoon tey nga koy xam yàlla na ñëpp am jàmm daal. kon boog ba suba incha allah.